ce projet bii dina am lu mu li nga xamante ni moom la ci ñu bëri wax fii mooy nañu fexe ba sóoraale que déchets yi du yem ci ville de Thiès kese déchets yi day dem ba ëmb loolu yëpp te kattan bi nga am ko pour teeru liy ñëw dafa am solo dafa farataw bokk na ci argument yi nga xam doon naa ko jox ñi war a àndu euh, euh, ci boole ñu ci bokk na ci argument yi que tey ñu ngi am aéroport bi aéroport bi ñun suñu réglé wul suñu problème mu déchet décharge bi nekk fële menace la pour avion yi loolu ñëpp xam nañ ko ñëpp xam nañ ni picc ak pitax mais baaxul ci avion te bu fekkee ne amuñu kàttanu toppatoo ko te aéroport bi nekk à côté nga xam ne bu bëreetel bu ubbee ngeen di xam ne sa à côté bu ñu ubbee Ila Touba bi ci ngeen di xam ne sa à côté te loolu yàggatul bu ko ubbee diggante fii décharge bi nekk ak aéroport bi 10 minutes ngay def kon nga xam ne ci dëkk bi la bokk kon loolu dañ ko war a waajal. waajal boobu nag moo laaj moo laajoon ñu ñu fexe ba dox léeg-léeg ngeen dégg maire dem na maire dem na maire dem damay dem nag waaw damay dem de ndax la ndax amuñu damay dem parce que nit ñi fay ñu impôt fay ñu taxe ku nekk mën ngaa xool sa bopp ndax yaa ngi fay wala fayu nit ñi fi la ñuy toog mbedd mi tàq na lii làmp bi tàkkul lii nàngam te kenn fayul luñ ko buñ lan lañ koy defaree buñ ko wutiwul dinañ dinañ ko am. alors su laajoon bu doon laajoon na 500 millions ma paas ko sax di ko paas di ko paas di ko paas ba indi 9 milliards baax na. am déet waaw léegi loolu loolu loolu mënut a ñàkk léegi nag ñii nga xamante ni ñoom ñi leen yabal ñi leen yebal euh, ñoom dem nañu ba gis ne effectivement argument yi ñu leen jox am na solo te ñoom seeni nit dañuy wàcc ci aéroport bi kon àdduna bi ña nekk banque mondiale. à travers ñom seen fonds pour l'environnement mondial xamnañu né séri ñom ci seen bok dañuy wara ñëw Sénégal war fi ñëw ay conférence war fi ñëw lenen war wacc ci aéroport bi té bu féké réglé wuñu problème mu déchets yi menace la aussi pour ñom lolu lolu lolu ñëpp la concerné motax kuñu ku ñu taxaw jàkkaarloog yow né la bo déful li mën naa bis di nga dina ñëw du baax ci yow